Lamine bàyyi liggéey Mamadou Koulibaly ginnaaw lay féete Mamadou Diouf waaw Mamadou Diouf bu Pakala <laughs> Pakala Pakala Lamine ànd nga nekk non non non <laughs> Koulibaly ñu ngi lay nuyu daal bu baax a baax Mamadou Diouf bu Alaaji Ngañ Jaañ <laughs> waaw boobu de moo gën a jub émission yi tamit maa ngi koy déglu mais passé maa ngi déglu ndeysaan bay message sax Ngañ Jaañ CNG bi ma moom moom moom moom li li maanaam li mu xalaat hmm. te jàpp ni mooy dëgg rek loolu lay wax hmm. loolu dafa am solo quoi lu ma xam boo wax parce que dama xaritoog Mamadou Diouf mm-hmm. Mamadou Diouf dafa bëgg lii mm-hmm. amul compétence gérer ko mm-hmm. mais naa ànd ak moom rek loolu warul warul di demee noonu kon ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax moom tamit di sàkku xam-xam bu baax ci moom parce que bi mu fi bi mu fi nekkee ba léegi ñun bokk na ci ñi nga xamante ni wallaay dëgg la moom moo ñu moom moo ñu bussee waaw moo fi doon nekk sa samedi loo mënti def sañu am téléphone bu amul bu amul bu amul kii bu amul rajo waaw waaw sa samedi loo mënti def loolu sa programme lay ne quinze heures da nga doon obligé sax di déglu musique gu démb. udah waaw di ah, xaar. waaw di xaar émission bi commencé. musique gu démb ngay déglu mu jeex rek. waaw nga mu commencé après nga sar. moo garmi. Mhm. ngay gis ñu doon def ay reportage yu doy waar. waaw oh. wallaay reportage yu doy doy doy. man garmi dama ragal koor. am na solo ma bala ngay def sama kan. koor gi jubat bu ñuy wax di waaw di alaaji nga jaaj ak ak ko hmm. laal dama continuer ak yow Lamine. nga ko RFM nga xam ne moo démarré mën naa ne lambi RFM parce que Ngagne Diagne RFM ku na xam ne bi muy démarré Sport FM la déparé mm. ay ñoom Boubacar kii ñoom nga Diagne ne fa ab suñu papa Ablaye Diaw ak ñooñu bëri wuñu woon mais après par la suite bu mu nekkee demee ba nekk rajo nag rajo boo xam ne boog sax day def information générale mm-hmm. wàllum lamb ji amun fa doole lool lool lool ci rajo bi mm-hmm. alaaji Ngagne Diagne sequn koo gar mi reportage boo xam ne Lamine boo ko doon déglu yow dootoo soxla sax gis image yi dio mm-hmm. boobu danga nga doon nekk stade sax. waaw ah, jeex na waaw waaw exact. waaw team man nekk naa démb joo ba taay di leen déglu waaw man mi loolu dal na bari nga ci morom. li ma gënoon a marqué nag ci seen dio. waaw buñ ne Babacar bu mu taseeg mu ni ko ñu ne ko mu lëng. ñu lëng ñu lëng mu yóbbu mu ñibbi ñu taseeg <laughs> Mamadou mu lëng mu lëng ñu lëng mu ñibbi. mu taseeg Lamine. ñu lëng mu ñibbi waaw. diw bu boo tasee ku la daal waaw boobu kàllaa mu lëng mu ñibbi. pour wan doon leen xel bu baax a baax. am solo moo tax ba mu fa jógee nag wax dëgg yàlla RFM. waaw ni mu fa meloon melatu ko. waaw loolu moom téere la vraiment. parce que itam loolu. yàllaa ko ko defal waaw don la quoi ci alaaji. yàllaa ko ko defal don la. koy ziar bu baax parce que tey dama duggaat ci TikTok bi xool invité woon na Yékini mook Malick Thiandoum ci télé bi waaw Lamine boo demee nga xoolaat waxi yi kii ni yooyu. Mm-hmm. ak fi Alaaji nga di dugg ak moom. ci i ci i rajo ITV. ITV waaw ci télé bi ci bopp waaw gis naa tànn non loolu loolu est-ce que. Ah? ah arène Sénégal bokkul ak kii bokkul ak bi Malick Thiandoum kese def. waaw non bii Malick Thiandoum ma euh, dirigé. Euh, Alaaji Ngañ amoon ci moom bi mu koy laaj ci ci for ay Forza. waaw laaj ko ci Malick Niang. laaj ko ci combat laaj ci Reug Reug. waaw loolu maa koy bi mu bi mu naan Forza ni mu jàppee làmb du làmb làmb du xare. jeex na mais Malick Niang nag la ci ni wax nee na Malick li mu am rek mën nga cee nekk mbër ba jeexal sa làmb. walaay dëgg la. li mu amoon. nee nag ba mu tolloo fi mu fi mu toll succès bi ñëw lii ñëw. Mhm. mbokk yi nangu ko mais mu ne est-ce que ay mbokkam xam nañu làmb. déedéet. parce que nee na moo bari ci làmb. agent kenn kenn tëggul am ko. déedéet. mbër buy fayeeku cent mille amul benn agent bu la soxla. Mhm. kenn soxla wala mbër bu fay ak cent mille boo fa amee cent millions nga ne damay wuti ci agent. waaw pour lan ñi nga doon àndal ci commencement. Mhm. kan nga doon àndal. wallaay am na nga doon